Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la conférence renouvelée, merci de des likes, merci de des abonnés, merci également de baisser les commentaires, un hein, plaisir renouvelé gars. Chaque fois de partager les informations, box sénégalais, fait pour les maintenir 14 régions du Sénégal à nouveau World Cup, nous sommes déjà fait, nous sommes également à l'hôpital et sécurité de février, nous sommes bonhommes focus en bop ngéwér ak jam, ñu nek ci kasso yi nga xamné erreur judiciaire ak gënël ñu defal mo leen fa yobbu, suñu borom gën leen fa délé wat leen seeni njabot, ñi dëddu aduna suñu borom xaré leen adjana fi daw ci gaay yi yéxi ñu, on avance ensemble dans la magie de eSport TV, l'actualité en continu, actualité

gagné Serena Williams li ngeen gis na gars yi moom mooy donc maillot pré bu la nationale Mannschaft lii nag gars may mi sol manam pour entraîner avant ñuy sol sen maillot pour jouer l'équipe donc des euh, Müller et également des Goreska. li ngeen di gis ni également gars yi mooy donc note FIFA yi par rapport ak Bayern de Munich la meilleure note ki nga xamne moy Neuer moo am 90 ki nga xamne nak moy Sadio ak Kimmich am 89 top si Goreska ak ñom Müller ñi di ñom Coman Ñabri donc Coman 86 nga am Gnabry ak ki di Bundesliga am 85 ki ngeen gis ne gay moy Iñaki Williams li ñaan chat, ko la la de 236 matchs musta blessé finalement nak blessé na gars yi donc Iñaki Williams il a choisi même de jouer pour les Black Stars du Ghana. El Neni yi malheureusement hein, El Neni dafa blessé hein, ci match contre Fulham blessure boo xam blessure bu métti la parce que au ko le terrain yi n'a que gu rëy rëy rëy diir gu gudd euh, staff technique ak médical bu à Arsenal daal di wax également de Casper Dolberg mom, de waaj dem du côté de Séville le joueur donc passé par l'Ajax Amsterdam ñëw ci Nice Casper Dolberg moom donc actuellement daal Séville moom moo ci daal di pour Dadi di recruter le joueur donc de Nice Paulo Dybala.

pour daal dem Chelsea bi nga également recruté nañ nous ah, ñu ngi les informations ils ont décidé de ah, d'acheter ki nga xam ne moom ngeen muy Guardiol Guardiol nag Guardiol du côté nag également de RB Leipzig 90 millions lañ ko bëgg mais dañ koy bàyyiwaat foofu non ah dañ koy baye du côté donc de Leipzig ah, ba saison à di 2023 mu daal di Carlos Soler nag mi ngi Paris Saint-Germain comme je l'ai dit donc au mondial fi mu officialisation bi gars nañ si semaine bii ñu nidal Paris Saint-Germain fii le bon mot moytuwul ah doon tey si guddi ñu ngi daal di jeexal li nga xam daal mooy donc contrat wu Carlos Soler pour mu daal di ñëw foofu la bonne nouvelle la bonne nouvelle pour les Sénégalais mooy ki ngeen gis ni nag gars yi di ah Henri Saivet Henri Saivet mi ngi po xam ngeen ko keroog dugal na benn but tey nag but bu magnifique coup franc bu magnifique la daal di dugal Henri Saivet de retour comme ni ma la ko waxoon c'est le meilleur tireur de coup franc à l'heure actuelle du Sénégal wane waat na ko tey dugal na coup franc bu somptueux le sourire de Idrissa Gana Idrissa Gana Gueye kii retourne fa nga xam ne nag fa la nekkoon fa la jóge woon ah mooy li ñuy wax naan ku ku ku comment dirais-je ku lamb daaw daagul fa da nga war a daagu fañ la nobee donc mom nak mi ngi daagu fañ ko nobee jamono ji ndax il est arrivé au niveau de Londres à Everton avion bi la jël jet privé bi la jël mom ak njabootam yëpp dellu ci Angleterre visite médicale am lay def nak contrat nak mi ngi koy nar khatim ñaari at ah, deux ans de contrat ak ben une année en option manam ñaari at lay ci khatim ak ben année bo xamné mën nako ci doli mom mi nga xamné nak donc match contre Liverpool boo matul dina jouer parce que tay ñi di wa Everton ñoo déplacé wu dem ci côté de Leeds United mais mom match contre Liverpool dal Idrissa Gana Gueye si tout se passe bien peut-être mu daal di départ wala bok mu daal di dugg ci euh, remplacement yi wara am ki gis également di Aliou Badji maa leen ko wax ci suba donc mom c'est presque officiel hein c'est presque imminent mu dem du côté des Girondins de Bordeaux mi nga xamné dernier minute yi accéléré nañ lepp lo xamné dal pour dal di ko fay euh, recruter donc il va se diriger du côté de Girondins de Bordeaux Qui ngeen également euh, Amidou Diallo xamé ngeen ko hein, mu le jeune talent de Guédiawaye FC mom nak dem na signé une Union Sportive de Tatouine Tunisie nous avons wax bonne chance parenthèse également pour wax aussi suñu football local bi suñu une yi aussi nous souhaiter bonne chance ñom tamit ñu am carrière professionnelle bu mag a mag c'était les informations que je voulais vous donner bonne gis-gis ngeen am nak ci qui euh, Idrissa Gana Gueye mi delu ci Everton hein, donc également le point mercato toujours un plaisir de vous servir également et en recevoir aussi ne pas oublier joxe sa xalaat ci retouram ja ngeen